xam nga ñun d'abord dañuy sant yàlla ba président de la république woote ndax euh, Sénégal day dëkk boo xamante ne lépp li fi am lu ñuy ndamoo ci kaw waxtaan lañu ko defee kon bu ñu tollee fii war a dem ci lu ñu amal importance muy wàllu euh, élection yi di ñëw ci 2024 te ñu war a tànn suñu njiitu réew pour juróomi at yaakaar naa ne li baax moom mooy ña ca war a bokk ña ko war a àtte ak ña ko war a seetaan ak ñi ci war a dugal seen loxo ñëpp war koo mën a waxtaanee ndax ñoo ñoo bokk Sénégal loolu nag ku ko woote dañ koy rafetlu waaye li ma jaaxal mooy naka la ñu mën a wootee lu rafetee noonu lu amee sens noonu nit ne moom du ci bokk waaye sant yàlla ba nga xamante ne tey ñi ñi ne duñu bokk ñoo nekk ñi néew ci ñi nga xamante ne nee na ñoom dañuy bokk ndax ñi war a bokk nag euh, ràññee nañ ci ñoo xamante ne bokk nañ ci réew mi ci ku gi lañ bokk bokkuñu ci nguur gi waaye am na loo xamante ne ñoo ko bokk te nuñu ko wasaare te mënuñu koo paacoo dañu koy pencoo te loolooy dialogue. Euh, waaw xam nga xam nga fi mu toll nii moom euh, euh, ajaratu Mimi nekk na ci posture boo xamante ne moom lu président tëgg rek da koy teggi waaw donc man ci loolu rek laa koy inscrire. voilà monsieur Bakhoum tey nga pour nga tënkal ñu ko rek tey seen waxtaanu seen ndaje tey bi la moo ko waraloon. alors tey dañu woote. Euh, en tant que task force républicaine pour waxtaanee euh, woote bi nga xam ne président Macky Sall woote na ko euh, acteurs politiques yëpp société civile syndicats yi pour ñu mën a waxtaan ci li nga xam ne moom la ñu jëm muy élection présidentielle yi waxtaanee ko pour mën a apaiser climat politique bi mën a permettre revendication yi nga xamante ne partis politiques yi am nañu ko ñu mun ko poser sur la table. Euh, moom en tant que clé de voûte des institutions mun a def arbitrage yi mën a tax vraiment euh, ñëpp rassuré wu pour élection yi ñu yi ñu jëm moo tax en tant que task force républicaine bokk ci alliance pour la république ñu woowaat sénégalais yëpp ñu ànd ak dal woowaat aussi euh, parti politique yi leader politique yi ñoom ñëpp ñu wuyu si vraiment président de la république ci dialogue bi ñu bi ñu jëm donc nag euh, loolu rek moo waral ñu def cette euh, conférence de presse euh, di ñaan yàlla vraiment ñu dem ci jaloog bi ci jàmm acteur politiques yu en tout cas yu ci gën a représentatif ñu bokk ci pour que vraiment échange yi mën a jur jàmm pour réew mi. acteur yi ci gën a représentatif bokk ci ñu dem ci jàmm mais ba démb Ousmane Sonko il est très représentatif te nee na moom du bokk parce que nee na dialogue jaru ko alors loolu nag dañu koy regretter parce que loolu du posture républicaine parce que nit ki boo boo bu la yàlla defee nga nekk njiit nekk un leader politique. Euh, dafa baax euh, ñuy teg tuuti émotion yi de côté ñu xam ne réew la ñu amal affaire du une question privée euh, dafa nekk loo xamante ne ñun ñëpp la concerné parce que tey ñoom ñu ngi ci opposition mais suba mën nañ nekk pouvoir attitude. bu ñu soxla tey mooy képp koo xam ne na nga ne acteur politique dialogue du compromission jaloog du renoncer say conviction mais dialogue moom mooy euh, ñëw wax sa dëgg fi nga ko war a waxee pour que ñu mun ko jël en considération mais boo ñëwulee euh, lépp la wax euh, ci ci ci ci mbedd bi mais loolu kenn mënu ko considérer donc loolu moo tax je pense que dialogue bi des na quelques jours on espère que dina revenir à la raison moom ak ñi mu àndal en tout cas moom wax na mais j'espère que ñi ko wër dañ ko mën a raisonner pour que mu mën a euh, fekkee dialogue bi parce que ñun ñu nekk alliance pour la république loolu mooy suñu loolu mooy suñu yéene. tam ñu wax ni tam euh, dialogue buy am da ngay euh, da wax les préalables ne bi ci lii la ñuy waxtaan ak nangam ak nangam mais préalable dafa ñu rek woote dialogue dialogue sur quoi. alors dialogue bi c'est surtout pour organisation élection présidentielle bi parce gis nañu revendication yu bari. yu jib ci opposition bi donc loolu yëpp war nañ ko mën a poser sur la table euh, mën ko waxtaanee mën a xool mécanisme yi ñuy utiliser pour que ñëpp rek rassuré wu ci élection yi ñu jëm donc loolu moom moom solo TDR yi nag euh, comité bu ndaw mun na tëju bind ko partagé kook ak ñëpp ku am amendement nga amandé ko balaa jour bi euh, ñu mën a en tout cas tëral décision yi sur la base de TDR yi nga xam ne euh, de manière consensuelle nit ñi def nañ ko en tout cas lu lu lu lu am solo rek mooy ku nekk ci ñoom wane yéene bu rafet nekk fii Sénégal toll quelque soit divergence yi am quelle soit peut-être métit bi nga mën a am boo xamante ne jàpp nga ne dañ la ko teg même de manière injuste loolu yëpp war nga ko teg de côté mën a xam ne Sénégal moo woote euh, nga ñëw dialoguer wax li nga xalaat pour que euh, suba. bu euh, buñ la laajee nga ne ah man kat bañ ma wooyee ñëw naa wax suma xalaat même si c'est pas pris euh, en considération donc bokkoon ci yéen mooy attitude bu bokkoon ci yéen tam muy soxna soxna Mimi Touré démb tam génn na. waaw moom moom tamit même chose laa koy wax rek ne ko euh, dialogue moom amul loo xamante ne tey moom daf koy wax au niveau de la presse te dañ moom ñu tere ko ko bu ñëwee ci dialogue bi. donc nekk na nekkoon na ancien premier ministre fekkoon na dialogue yu bëri yu ñu organisé depuis 2012 président Macky Sall mu ngi koy def ba léegi donc xam na principe bu dialogue donc moom ci boppam euh, bu nekkee li muy wax vraiment euh, lu lu lu dëggu la ci moom mais na ñëw ci dialogue bi su boobaa mu wax ko foofu je pense que loolu mooy attitude bu gën a républicaine. merci beaucoup des jeunes Sénégal mi ngi lay sant di la ngeen jëf.